yàlla nee na seen hisaab lu jege la waaye da a sàggan ndax taar taari àdduna yi dangeen a sàggan dañuy xëy rek àdduna ni kërëb tukki semaine bii rek semaine bii maa ngi fanaan Dubai ñi ma àndal maa ngi leen di nettale wallahi lazi la ilaha gayru yàlla may seede ñoom samay seede lañ may wax ak ñenn ñi ne mbokk man de dama tiit wallaahi na dama tiit hôtel bi ma nekk génn ñu doxantu ma ne waaw oustaz lan la gis nga dëkk bi ni mu rafetee man ne ko waaw mais dama tiit xam nga sama xel fu muy dem mu ne ah ma ne ko yaman la fa amoon li borom bi naan saylul arim xam nga ab dëkk yàlla dana leen wërsëgal ñu topp wërsëg bi ba fàtte sant yàlla ba fàtte jaamu yàlla mbokk yi tey Dubai. mbollem xet moy yàlla ñu ngi dajale Dubaï ñi gëna a yées ci kaw suuf ci ay milliardaires ay influenceurs ay footballeurs ay katu film ay tiaxan kat ay moy katu yàlla ay jaay katu seen bop ñoo fess del ci hôtel yi moy yàlla da nga yimu ci yàlla dëkk bi rafet yimu motax barki bërki bi inondation bi amee rek mbokk mi daf maa woo ne ma oustaz xanaa dangaa gisoon lii man ko wallaahi gisuma ko mais dafa mel ni rek lu ma dikkal ma war ko wax rek wax ko noonu la ma dikkalee effectivement fa ñu romboon jàppee ko taar bu rafet dañoo xëy ndox ne ko ragex yàq lépp yàq lépp xoola mbokk yi Dubaï fi mu toll ci avancé dañuy foog ñu developpement développement mooy loo bëgg defar nga defar developpement mi ngi tàmbalee ci développer nit ñi seeni xel bu ñu mën a delloo yàlla li mu moom tey dem na ba Dubaï boo làkkee arab you speak English lañ la boo déggul anglais bokkoo cest dire mu dem ba dañu démystifier arab mu dem ba lu neex nit mu def alal ji bëri na taar-taar yi bëri na soo fa duggee boo defut ndànk danga naan non non mbokk loolu bu ñu ko toppee jàpp ko fàtte bu ñu yow yowmal qiyaam di bett waajoon nañu lépp. dem nañ ba àgg ci ni dëkk bi day tàng day gëj am ndox am nañu alal bu bëri ba alal bi jay na leen nit ñi dañuy créer pluie artificielle moo leen indil problème bi bu ñu bàyyi woon yàlla ni mu programme yëfam rek mu continuer yëf yi day dem tàngoon na mais nekkul problème mais nit bu amee tem mu commencé teg yàlla mbagg fii tàngal nga ko war woon a tàngal xaar ma jéem a fexe nu mu seddee fii nangam fii nangam fii nangam commencé créer benn lekk li ñu tuddee benn benn kii euh, pluie artificielle dóor ay bomb tuy pour asamaan si taw loolu lu mu la indi tey indi na leen yàq-yàq boo xam ni kenn xamul nu mu toll moo tax borom bi na ne iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi gaflatin muridun nee ne nit ñi <laughs> seen xisaab waaye ñu ngi sàggan bàyyi wu ñu xel jaamu yàlla soo leen di waxal jaamu yàlla ngir jàjj leen delloo leen dañu koy jëlee mer dem nañu ba fàtte mbokk yi bis dina ñëw yàlla xisaab lu wallahi mbokk saa boo xëyee dërëm boo lekk danañ la ko laaj foo ko jëlee loo sol danañ la ko laaj foo tëdd danañ la ko laaj foo dugg danañ la ko laaj loo def danañ la ko laaj ñi gën a réer mooy am moyen ba fàtte ni bis penc am na mooy dal ñu bëri borom bi nee na inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun shadidun bima nasu yawma alxisaab borom bi nee na ñi réere mbiru yàlla dëgg ñi réere yoonu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ñooñu am nañu mbugal mu métte métti lu tax bima nasu yawma alxisaab fàtte bi ñu fàkkee bis bañ leen di laaj mbokk yi ku rëy rek moo dul fàttaliku ne bis dana ñëw ñu laaj la même yére bi ñu la sarax danañ la ko laaj même doomu tàndarma bi ñu la sarax danañ la ko laaj ki ko joxe danañ ko laaj ki ko jël danañ ko ko laaj mbokk yi ñi ragal yàlla de dañuy xalaat loolu moo tax balaa ñoo def dañuy xalaat jullit bu yeew bu conscient balaa ngay lekk wala ngay naan wala ngay def xalaatal ne lii am naa ci responsabilité mi ngi nekk sama kanam برام بنين والذين يصلوا ما أمر يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب دنيي رجل يلا حساب لين حساب بديوار لن مو حساب بقي مو أوديت لن مو أوديت مو سيجف بعها أمي 18 عام نك غور ببعها يجين أدنى لب لو دفس responsibility لا يلا دنا لكولاتي